asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki jàkkaarloog noonu dañu seetaan noo ngi amaan mbégte jàkkaarloog yéen ci jataay bi nga xam ne jataayu fàttaliku la waaye jataayu sant yàlla la mu di jataay bi nga xamante ne bii eh, jambaari lislaam ja di sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké sosoon na ko fii ci Daaru Salaam ci atum 1983 muy bis bi nga xam ne saa yu accès ku yaakaar maam Cheikh Anta da nga wëlbatikuwaat dajale li nga man ak li nga mënut ñu boole ko yëpp jébbal ko ki fi nekkal Serigne Touba Xaadim Rasoul loolu nag ñoo ngi ko tàmbale woon ca ñetti millions yu tegaloon téeméeri junni ak juróom-benn fukk ci jamonoy Cheikh Abdoul Ahad waaye daaw jébbal nag ñu jotaat ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci Serigne Mor Fati xalifa maam Cheikh Anta na ko fi yàlla yàggal doole ak wéram ak rakam Serigne Mbacke Anta waaye mu jaar ci Serigne Jili Fadli xalifa sëriñ Modou Mamoun ak sëriñ Abo ibnu Cheikh Mahamadul Mamoun ak mbooleem njabootu sëriñ Modou Mamoun gépp waaye ci teewaayu soxna Daba Mbacke bintu maam Cheikh Anta sëriñ Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëriñ Modou Rokhaya eh, fas yéenee jox ndigal fédération xidmatul xadim bi nga xamante ne bii lépp lu jëm ci wàllu kër gi ñoo ko yore ñu fas yéene woote bis boobu nga xam ne mooy bis bi ñuy fàttaliku sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké mi sosoon addiyee Daaru Salaam ji ci atum 1983 ren ji ñu jàpp ko samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ bi ci bis bi ñuy dënmal mooy bisub sëriñ Mouhamadou Rokhaya wala dëppook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier li ñuy jiital ci bis bi muy alxuraanul karim ci nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa wax ne kitaabun bihi narjoo minallaahi rahmatan wa nanjoo bihi duniyaa wa oxra minal karbi kon loolu la sëriñ bi wax ne moom lay jiital ci bis bi bi tàmbali woote bi ci jànket alxuraan yépp rawatina daaree kaamil ji nekk fii ci daaru salaam te suñu waajur Serigne si la jiite ko ñu ngi leen di yëgal bis bi di leen ko fàttali di leen xamal ne fàttewu leen ko sax waaye lu ngeen ci daan def rek ngeen gën koo yokk naka noonu ñu di ko yëgal itam daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Daaru Salaam daara Serigne Asmor Dia daara Serigne Bassirou Sakho daara Serigne Balla Gaye ak Serigne Fallou Tine mi nga xam ne moo nekk ci sanc Daaru Salaam yi. ak mbooleem daara yi nekk foofu ci sanc ya daan àndandoo ñoom ñëpp ñëw fii ci ëttub sëriñ bi di fi wàccee kaamil ba tisbaar noonu sëriñ bi mi ngi leen koy soññ di leen ko fàttali eh, daara yi nga xamante ne bi itam mooy daaree Kaamil yi nekk Touba sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali bis bi di sàkku ci yéen lu ngeen ci daan def rek ngeen gën koo dolli eh, naka noonu daaree Kaamil yi nekk Njaareem eh, sëriñ bi mu ngi leen di fàttali njàngam alxuraan mi ak daara ya nga xam ne ñoo nekk foofu fa Njaareem di daare sëriñ Mor Mbaye Cissé sëriñ Abdoulaye Cissé nekk ci bopp ba ak daaree sëriñ Bassirou Cissé sëriñ Cheikh Cissé nekk ca bopp ba daaree sëriñ Cheikh du Dieng moom daana jàng kaamil yu baree baree bari yoo xam ne euh, lim yu bari la ndax da ko daan tàmbali lu jiitu bis bi ñëw sëriñ bi mu ngi koy fàtt di ko soññ nam nan def gën cee farlu gën cee taxaw ak mbooleem daaree kaamil yi nekk foofu ci njaareem yëpp ak daara ya naka noonu daara daaree kaamil yi nga xam ne moo nekk daarul muxti sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali bis bi waaye nag da ci beral ab fàttali jëmm joo xam ne maanaam dafa jëlan bés bi at mu nekk bu ko sëriñ Cheikh si la diwaan mii Massa wax moom Baye Matar si la muy sëriñ Abdourahman mu daan ci def ak farlu lool daan ci jàng li mu kaamil yu baree bari sëriñ bi mi ngi ko koy fàttali euh, nu ci daan taxawee rek mi ngi ko koy fàttali bu baax a baax di ko ci soññ naka noonu itam daaree kaamil yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Boofel ak Ndiliki ak euh, daaree kaamil yi nga xam ne ñoo nekk ci mboolem yoonu murid bi yëpp rek sëriñ bi mi ngi leen di fàttali njàngam alxuraan mi ak daaree sëriñ Modou Mamoun Diagne ja nekk ngaay ñoom it bis bi seen bisa ak mbooleem jànkal alxuraan yi ak jànkati xasida yi foofu jànk xasida man a mën a nekk rek njiitul sëriñ Abdoulaye Seck mi nga xam ne mooy taxaw bis bi at mu nekk euh, ñoom ñëpp sëriñ bi mi ngi leen di fàttali bis bi ñu gën cee farlu te kenn ku ne ci lim boo jàng rek ñu fexe sëriñ bi yëg ko dana leen jox numéro boo xam ne lu ci waaye jàng rek mu woo ko yëgal ko ne jàng na nangam mu jot li ko sëriñ bi. di wax ci turu dongoy laxasaay di woo dongoy laxasaay yëpp xam ne màggal gi mooy sunu màggal. tàmbalee ci ñi ci njëkk ba ci ñi mujj ñu wax àll sëriñ Aliou Sylla sëriñ Modou Diop ca Pire ci ñu koy Modou Diop jëwriñ sëriñ Ibrahima Guèye ak sëriñ Alaaji Ñang ñooñu ak sëriñ Ahmadou Sylla mi toog ak Touba Guèye ñooñu ñooy magi daara ji ak ñun ñii ak ñi ñu gën a doon gone ñun ñëpp ci dongee laxasaay lañ bokk ak ñi nga xam ne jaar nañ fii ci daara ji ba pare jóge bi ngeen xam ne màggal gi mooy sunu màggal geneen màggal guñ dem nañ ca wàlli gi mooy sunu màggal màggalu dongay laxasaay mooy màggalu sëñ Modou Rokhaya màggalu sëñ Modou Rokhaya nag am na lu ñu daan daan sose dongay laxasaay mooy njàngum si ndiidi dañoo wax ne buñ tàmbalee njàng buñ buñ jàppee bis bi ba bis bi ñëw nag kenn ku ne sasoo lu mu néew néew ñaar téeméer si ndiidi bu ko mënee ëpp moo gën léegi nag kenn ku ne boo jàngee say si ndiidi ba noppi na nga woo ku ñuy wax Modou Rokhaya Ndaw jox ko lim bi. yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si bitim réew ci Italie ci sëriñ Mamoun Diop moom sëriñ El Hadj Ndumbe moom Daaru Xaddim nga xam ne moo jiite taalibe yi nekk Italie yëpp sëriñ yu mbaw mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira ba ak sëriñ Modou Rokhaya Touré ak borom Pastef yi nga xam ne bi ñoo ànd ak. Euh, daayira sëñ Modou Rokhaya bi nekk foofu yëpp ñoo ngi leen di woo di leen soññ si bisu màggalu sëñ Modou Rokhaya gi bëgg ñu def ci Pastef te matale sas yi te teel a teel a teel a teel a yónnee seen i addiya ndax màggal gi ñun màggal gi rek lañu am bëgg nañ ñëpp ñëpp ñëpp def ci Pastef te nañ ko daan defee ndax ñoom kenn musu leen ci ëpp doole kenn musu leen cee jiitu léegi ñoo ngi ci yëgal waa Espagne ñoo ngi yëgal waa waa euh, Allemagne te Mat Diop nekk fa ñoo ngi koy yëgal waa waa Argentine ci Fallou Gueye nekk fa ñoo ngi koy yëgal waa France te ku ñuy wax Modou Gueye nekk fa Modou Rokhaya Gueye ñoo ngi koy yëgal Espagne Mamoun Ndoye nekk fa ak euh, bokki bi yëpp daal bàyyiwuñ kenn ku ne bitim réew waa Amérique bàyyiwuñ kenn ak Afrique du Sud ñoo ngi woo ñëpp Basirou Talla ci Italie te jiite mbooloom Pastef mi ñoom ñëpp ñoo leen ci woo. bis bi nag ñu ngi koy yëgal kon waa daayira Daaru Salaam nga xam ne tey ñooy ndey daayira yi di ko yëgal waa daayira Daaru Salaam Mexe di ko yëgal waa Daaru waa Touba Madiana waa Daaru Salaam Touba Okas waa Daaru Salaam Maam Cheikh Anta bu Jurbel wa Daaru Salaam Kaolack waa Daaru Salaam Ndindi wa Daaru Salaam Gaawaan waa Daaru Salaam Longoor waa Daaru Salaam bu Serigne Jibril Souk waa Daaru Salaam bu Bari Ndondol waa Daaru Salaam bu Sébikotane waa Daaru Salaam bu mbuur ba tey ñi ko yëgal waa Daaru Salaam Malika bu dakaar waa Daaru Salaam Pire waa Daaru Salaam euh, Ndémen Louga waa Daaru Salaam bu Soxna Ami Ndiaye waa Daaru Salaam bu Serigne Mor Sall bu Diourbel waa Daaru Salaam bu Kadd ñoom ñëpp Kadd Jéey ñu ko yëgal ñëpp di ko yëgal waa Daaru Salaam gaawaan Kaolack di daayira bu bu bu bu sos bu sos ren ji fekk fa daayira bu mag ba fa woon ñooñ daayira yëpp ñoo ngi leen ñoo ngi leen di soññ ñoom ñëpp ci sëñ Aziz Babou Sidi Ndoye seen mbooloo yëpp ñoo ngi leen di soñ soñ bu a baax di soñ kon waa Daaru Cissé Daaru Salaam Daaru Cissé waa Ngay Ngay Daaru Salaam Ngay Ngay waa Daaru Salaam Mbomboy waa Daaru Salaam Tongol waa Daaru Salaam ak bu Daaru Marnaan bu sëñ Ousmane Ndiaye ñoom ñëpp ñu di leen soññ di soññ ba tey Daaru Salaam bu sëriñ Khadim Amar ci Njaareem di sa Daaru Salaam Saint-Louis ñoo ngi ñoo ngi leen di soññ bu baax a baax di waa Daaru Salaam Paleen Dedd waa Daaru Salaam Daaru Kibari ak waa Daaru Salaam Caaroy Azur ñooñu ñëpp ñu soññ mbooloo ma te di ñaan ñu takku euh, nañ nañ nañ daan ñëwee di soññ ba tey waa Daaru Salaam Touba Sam waa Daaru Salaam bu Kër Sëñ Mor Sall waa Daaru Salaam bu Géejawaay waa Daaru Salaam bu Parcelles Assainies ñooñu kon ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ci ci ci réew mi ba mbuur ñëpp rek ñoo ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne tey moom la ñuy fàttaliku sëñ Modou Rokhaya di ko ci ñaanal tey di nit ñi itam xel ci ne liggéey bi ñuy indi di ko jébbale ci fédération bi moom ci ñaanu sëñ Modou Rokhaya gi la jëm jëmmi addi Daaru Salaam yi nag moom mbooloo mu nekk ñoo koy tënk jox ko sëriñ bi ci seet ci loxoom. ñu fàttali rek ne mbooleem jàngkati alxuraan yi lu nu jàng ci limub alxuraan mën nañoo woote ci numéro bii di 77 548 95 73 77 548 95 73 moo xam nag muy daara ju ne ci biir réew mi wala daara ju nekk bitim réew fu kër Serigne Touba mën na rek mën a ne Serigne bi nee na mi ngi sàkku ci yow njàngum alxuraan di fàttali it ne mbooleem dongoy terbiye yi. lu waay jàng ci xasid ak sindiidi waaye yemuñu ko ci dongay tërbiye yi mas a jaar ci loxoy sëñ Mudu a jaar sëñ Mudu Maamun wala sa baay bu a jaar ci kër a jaar a jaar a seexal wala sa baay jaaroon ca ñi ngi lay yëgal bis boobu di la la yi Sëriñ Mudu Roqee ndax ca la nekkoon wut fa ngërëmul yàlla ba am ko kon nag ñoo ngi sàkk fu waay mën a jànge xasida nga woote ci numéro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

yow koo xam ne sëñ Modou Rokhaya sa waajur la mi ngi lay soññ wala koo xam ne sëñ Modou Rokhaya mooy sa maam tàmbalee ko ci sëriñ Moxtaar ba ci këy gën a doon gone ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññ ci bis bi di soññ it mbooleem seex si tàmbalee ko ci sëriñ Modou Baaxum ca Daaru Baaxum sëriñ Seex Mbay ca Longoor sëriñ Modou Mamoun Dia fii ci Daaru Salaam sëriñ Abdou Dieng ndogal sëriñ Jaxate sëriñ Daam Caam nekk ca Mbar sëriñ Moussa waaye di ko di ci soññ itam euh, sëriñ Mokhtar Diom nekk ca Thialé waaye di ci soñ itam euh, Serigne euh, Moussa Diouf nekk ca Tongol waaye di soñ it mbooleem koo xamante ne bii ab seex nga bu jaayante sëriñ Seex Jeng nekk ca Sugeer sëriñ baa ngi koy fàttali di ko soññi di ko soññi itam eh, sëriñ Ndongo Mbay nekk ca eh, Sinjaan di ci soññi itam sëriñ Modou Samb nekk ca Njëlbéer ak mbooleem waa Njëlbéer gépp bàyyiwul kenn ak mbooleem koo xam ne nag samaam ab seex la boo àndoon ak maam Cheikh Anta bi mu jaayanteeg sëriñ Modou Mamoun ba jaayanteeg sëriñ Modou Roxee ba ñëw ci sëriñ Seex si la di ci soññi itam eh, sëriñ Modou si la docteur waaye di ci soññi itam sëriñ Mor si la Njalab waaye di ci soññi it sëriñ Alaaji si la moom sëriñ Masila Ndaak nekk ca Ndakaaru sëriñ Jëga si Sylla ca Ndindi di njabootug sëriñ Maxtaar Sylla ak mbooleem ñi nga xamante ne ci ñaanal muy bis xam ne benn bal bu mën a ñaari picc daa ci am yoolub addiya te sëriñ Touba noonu woon alhadiyatu tajsibul muridina ila sahada wa huluwil maqamati wa kasratul mal wa tulul umri wa mahabbati wa jawisan ala sirat wa duxulil janna bi xayri isab loolu bokk na ci njëriñul da a àgg am na waxtaanu diine woo xam ne daañ ko fa amal ginnaaw bu nu julee timis ba noppi sëriñ bi nee na mi ngi ciy séntu ñëpp di ñaan képp ku ci teew yàlla na faj sa aajo ci barkeb sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu